Abel moom munu moon xalaat ne yow sàcc nga tu es une voleuse doublée d'être une menteuse professionnelle fii yaa ko fi dugal mën naa ne yaa ko moom fi mu dëkk mais loolu taxul aussi nga am benn droit ci moom wala benn droit boo xamante ni ni heure bu la neex dugg ci kër gi wala heure bu la neex kenn Chinois ba tey nanguwuma wax sa vie dinaa la jàngal lan mooy àdduna ak lan mooy nit dal naa ci Union européenne temps